jërëjëf euh, Sidi ñu ngi lay fay di nuyu mbooleem ñu ngi seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi te di ñaanal Serigne Sidi Abdou yàlla yàgg ko suñu kanam ak mbooleem njabootu Serigne Touba. jërëjëf honorable euh, Abdou Lahad Seck Sadaga euh, xanaa ci maanaam askan bi mu bokk mu defal ñu ci ab rappel tuuti rek bu ko defee ñu tàmbali tàmbalee foofu noonu waxtaan bi. Euh, jërëjëf maa ngi bokk ci askan woo xam ne euh, xëy na baaxu suñ borom moo ma ci boole ndax euh, sama waajur wu góor mooy jarbaatu sëriñtu ba mooy meenum Serigne ba ma bokk ci te yàlla boole ma ci mu de bokkiwaat ci Taïba Cekkeen maam waar di sama maam ak. maam dàgg Seck koo xam ne boroom xam-xam la woon boroom alxuraan la woon yàlla dogal nag euh, sama waajuru jigéen euh, bokk ci mën naa ne naaru darmanko yi bokk ci ñi nga xam ne euh, njabootu Serigne Touba lañ ba yàlla dogal tey ma feeñ ci di ci sant yàlla sant yonent bi sant Serigne Touba loolu nag du caagi ne fu la neex ngay juddoo. yàlla rek mooy def mu dimbali la ci baaxam euh, nga juddoo foo xam ne euh, mën nga ko wane. Mm-hmm. bu lu jugee ci wàllu jàng bi euh, nga xam ne maanaam def nga ko alxuraan dem nga daara français fan nga ci yem. dem naa ah, mais mais xam nga dem nga daara neex na ma. Mm-hmm. ndax rusuma wax fi ma jaar sama mag Serigne Modou Seck. di sama sëriñ ñaan yàlla yàgg suñu kanam moo ma jël yóbbu ma daara euh, mën naa ne ma jaar ci diggante kër sëñ Chouaïbou bu kër Baye sëñ Sàkk jaar ci diggante kër sëñ Saaliw ak sëriñ Saaliw si ñaan yàlla yokk seen leer taas seen barke ba tey ji ma mën a nekk fii doon taalib sëriñ Tuubaa boo xam ne yàlla dimbali na ma ma jàng fi jóge fi dem Mauritanie jàngi ba tax na loolu mbir la boo xam ne sant naa ci sëñ Touba sant ko moom mi nga xam ne moo ma jaarale foofu lii jëm nag ci wàllu nasaraan comme ni ma ko sëñ Saliou waxee woon euh, ne ma woon yëguma foo jànge ndax jàpp naa ne boo jàngee ma yëg ko ndax maa la la yar euh, njàngum moom mm, lu ma ci xam rek mm, bintu joobu ma ko ko def kon moo ko jàngal xam nga ñun yàlla dafa def bi nga xamee ne parti socialiste mi ngi fi euh, yàlla dafa defoon ñun dañoo bokk ñi nga xam ne dañu jàppale ci parti socialiste euh, jamono jooju ku ne xam na parti socialiste niñ meloon ak euh, soxna Bali moom soxna May sama benn mag ku ñu wax Assou Seck Mousli Seck moom mu dugal parti socialiste ñu ne ci ci diggante boobu président Abdoulaye Wade jógee France di ñëw Sénégal bi mu ñëw Touba ak xolu murit ci jamono jooju yi nga xam ne moom la ñu doon gëmloo muy bokk na ci bu ma gañee réew mi danaa indi ndoxum Tuubaa mi muy Lac de bi danaa indi canal de Bawol yooyu mu ñu waxoon mu intéressé wuñ moo taxoon ñu bàyyi suñ lépp ci jamono yi bàyyi mu mouvance présidentielle bi dem jàppale ji ko bi ñu ko defee ci loolu ci lañ continuer di ci yëngu di ci yëngu di ci yëngu ba yàlla dogal euh, ma gisee ak benn premier ministre bu fi nekkoon muy président Macky ma ànd ak moom fekk mi ngi nekk euh, premier ministre Sénégal ñu ànd nekk ci loolu nekkoon naa sax ci waar bu Modou Diagne Fada mais sama xarit maa ngi koy nuyu sama xarit la yàlla dogal euh, ma jóge foofu ak ci ñàkk bokk gis-gis ak ñoom ci loolu moom mu yóbbu ba ma dem euh, ànd ak président Macky mu def ma chargé de mission bi mu nekkee assemblée mu def ma chargé de mission ma nekk ak moom ba yàlla dogal mu jógee assemblée man it ma jë bàyyi fa mboolem lu ma yoroon dem parce que dañu wala fi dañuy wax ne bu tëgg demee lu fu ëpp yee def. Mm-hmm. ma dem ànd ak moom jàppale ko wëkkërlu ci yàlla parce que sama gëm-gëm chaque jour. Mm-hmm. mooy ku daan yelwaan di dundee waroo am problème mu waaye nekkoon naa fii wala dama am jafe-jafe nangam parce que man aw ma problème mu dund ci yelwaan di dundee parce que ab donga daara euh, li ñuy wax am na sama benn soxna su mag ku ñuy wax muslim Mbàkke mm-hmm. su ci lekk yi xamul gan laa ci bëgg xamul comprendre sax ne bu lekk gi man aw ma neex na wala neexul man na sama biir fees rek aw ma ci problème. waaw man loolu rek man damay bu may añ léeg-léeg sax dañ fi reer ma jël cere boole kook salade di lekk man jàpp sama bopp aw ma benn problème maa ngi ci jàmm daal. mais xam nga ñun en tant que député assemblée nationale gis nga assemblée kuy wuti rek am problème parce que en 2000. 2012 bi may wuuti nga xam ne booba fu ma dem ñi may dégg doy nañ ma seede fu ma dem rek dama naan bu ma gañee danaa dagg dagg sama salaire jox leen fu ma dem rek dama koy wax. moo nekkoon si waaw fu dem dagg sama salaire jox leen naan bi demee campagne ba gañ dama am problème parce que bi ma jëlee su ma jëlee sama salaire ñooñu ñëpp mu bëgg leen caa jox def naa ko parce que def muy handicapé yi muy sëñ daara yi. Mm-hmm. muy jumaa ji mhm. gasoil bi ma fi joxe par euh, kii yooyu yëpp bu ñu ko calculé mhm. ak sama salaire mhm. sama salaire attunu ko ak sama fonctionnement problème la mais dégg naa fi sax ay député yoo xam ne def nañ ko fan yi bi ñuy wuti kii bi ñu wuti bi ñu wuti seen mandat wër nañ wax lu mel noonu mais après ñoom maa leen tane parce que waxee def naa ko ba askan ñu xam ne def naa ko. mais gisoo dañoo daw parce que xam nañ ma xam. Euh, dañoo daw mais ñaareel bi mooy peuple bi. waruñoo xaar ci député joxe. Mhm. waruñu ci xaar joxe li ñu war a xaar ci député mooy suñu problème lii la yóbbu ko assemblée nga joytul ñu ko. Euh, assemblée nag ñaari xeet la ñaari xeeti programme la euh, li tax mooy boo gisee dañu am lu ñuy wax commission. Mhm. yoo xam ne tey problème mu dëkk bi ñu ngi ko war a waxtaanee ci benn commission. commission boobu salle ferme lay doon du am télévision. du am rajo du am caméra journaliste du fa dugg. commission euh, ni ma ñëw boobu tuuti. commission yooyu nag mhm. dalay may boo ci nekkee euh, man naa ne la député sookat yëpp du ñu ñëw duñu ñëw. xam oh, xaaral ma expliqué. ma dee wax na may dégg ay termes il ma ciy laaj. non maa ngi ma boobu noonu. ma laaj nga mais non non commission yi assemblée laa waxuma. non la. non may ma ma ñëw danga may may tuuti ma wax a yow. Euh, bu fekkee ne dañoo nekk ci assemblée bi commission yi bu ñuy woote waxuma benn commission commission yi bu ñuy woote. commission la waaw ay commission la mais commission yi bu ñuy woote. dafay baax nga bàyyi li nga doon def nga ñëw fekk commission yi. parce que commission bi nga nekkoon nga bàyyi ko dem. déedéet déedéet déedéet li nga doon def. li nga doon def ci sa dëkk wala yeneen yi. nga ñëw di fekk commission yi. pour di fekkee waxtaan yi pour jafe-jafe bi xew sa dëkk nga man ko wax foofu. mais du ñu def loolu lépp ci opposition bi du ñu def loolu yàlla rek laay waxal. dañuy bàyyi ba ñu ñëw assemblée nationale maanaam ci plénière bi nga xam ne presse bi yëpp ñëw na. Mhm. ñu ñëw foofu di weddi yenn yi am na yoo ko fekkee ci commission bu ñu ko weddee bu ñu ko waxee ne bu ñu ko def bu ñu ko xoolee foofu député yi danañ ci ànd ak ñoom. Mhm. parce que léeg-léeg ministre day ñëw wala dép wala ministre day ñëw ñu indi benn programme ñu xool ko ñun député ñu delluwaat ko mu dem xooliwaat ko mhm. mais loolu ñu ngi koy defee ci commission yi. mais bu xasee jóge foofu ba ñëw ba ñu wootee ko ci commission yi bu xasee ñëw ci euh, plénière bi dóorutu sax loo xam ne amati nañ njariñ parce que kii parce que voté nañ ko ba pare li dara mooy wan Sénégalais yi ne jaar na assemblée lii de jaar na assemblée voté nañ ko amatul luñ ciy wax ñëpp xam ne lu leer la loolu rek lañ ciy jublu moo tax yenn jafe-jafe yi di am ci dëkk bi président de la République def na ci am solo parce que chaque mois danañ ci def cent vingt millions wala lu ko ëpp ndoxu dëkk mooy fay facture yi Médina président Macky Sall mooy fay facture yi ah. moo koy fay fi ëpp ci dëkk bi ñu ngi fa yóbbu ndox man mii rek euh, dama créé benn programme maa ngi ko tuddee Sadaga ku mar naan fu bëree bëri yóbbu naa fa ndox ci dëkk bi loolu jëfin bu am solo la boo non non may ndox nit ñi parce que loolu moo doon sama programme non non non pas na def addition d'eau dafa leen ay tiwo may leen ndox ñu naan moo tuddee ko Sadaga ku mar naan beneen bi ci topp nag mooy li nga wax ci affaire assainissement Touba président de la République def na ci rôle bu am solo parce que mu à sëñ parce que man assainissement Touba maa ko yore depuis 2009 ba nëg maa ko yore woon euh, assainissement Touba leen li sëñ Saliou ko def leen li sëñ Alaaji moo ko def yal yàlla yokk seen l'état ci leen li président Macky Sall moo ko def benn président de la République mënu laa wax ne lii laa def ci assainissement Touba kenn mënu la ko. Abdoulaye Wade def fi dara. non non mënu laa wax lu mu ci def ci assainissement Touba lu leer laa la wax. foo teg loolu. non dama yor assainissement xam li xew maîtriser ko. assainissement Touba kenn ban ko yor. 2009 ba tey maa ko yor laa la wax assainissement bii ci Touba li ko tàmbalee ñaari étage bi ko tàmbalee route ñaari étage def Daaru Xuddoos assainissement bi fi njëkkoon nekk euh, sëñ Saliou ko fi def. Sëñ Sall otom foncé na foofu maanaam ngiroo na foofu ci biir kër ñaari étage bi président Macky Sall ñëwee ndox assainissement ba mu fa def boo waree fas mën nga ko dawal ci biir teew yi ay milliards lañ jël suul ko ci suuf lu am solo la def mais beneen bi nag dafa am loo xam ne état bu defee ba pare dafa am lu ko war a gunge il faut ñuy waxante dëgg mairie laa bokk sama xarit moo fi nekk Abdoulaye Ka ci taw mu fekk ñu teel koo préparé parce que assainissement bi dañ ko war a defar caniveau yi avant hivernage suuf si yi nga xam ne dañ ko jege fi nga xam ne assainissement bi dafa dañ ko war a préparer ba nga xam ne suuf si warut mën a egsi ci moom ak mbalit mi. yu bëri ci biir réewum senegal ni ñu mel Touba desu ci ginnaaw. Touba Mbacké gox yu bëree bëree bëri askan wa di fi dund jafe yu tar ndoxum taw mi moo leen tere nelaw mbënd la wala am wal luñ ci manti ne ndoxum taw mi bëri waay bi foo ko takk weesu na ko. bu ñu bàyyee xam nga dëkk dafa aw yoon. ñun bu ñu bàyyee ñu liggéey jafe-jafe du am parce que gis nga dëkk bi problème bi mooy euh, waxuma dara sax mais mbedd yenn yi nga xam ne. Mhm. dañoo am dañoo parce que fi te ren nawet bi metti am na. parce que nawet bi problème bi mooy fi mu tawee fi may wax yow bu tawaatee fii ak 15 jours euh, déeg nawet bi dana ko fekk. donc amu leen entente mais booy démb. non dajewuñ sa kanam. non mais daj ñan ñoo fa nekkoon. ñu responsable yi moom. comme nee responsable am na ay kan moo fa man koo fa gisul. bëri na kan on peut kan. non lan mooy seen problème. kan nga fa gisul. waaw léegi. non responsable bu ñëwul. nekkul ci dëkk bi yónnee na. boo fa gisee ku ñëwul nee ma diw ñëwul. non man xam nga mën naa wax ne diw ak diw ñëwul. déedéet dama ne yéen nga xam ne yéen mais. non non démb honorable xam ngeen ne na problème à Touba. mais danga may may ma tontu la. waaw tontu ma ci loolu. APR ñu démb sax président présidentiel ñoo fa nekk. Ah. yàlla dafa dogal sax alliés yi nga xam ne dañuy jàppale président muy waa kër Fada muy waa kër Souleymane Ndéné muy ñeneen muy ñeneen ñëpp a ñëw AFP PS ñëpp ñoo nga fa woon ñun responsable APR yi nekk Touba ña nga fa woon amuñu benn jafe-jafe ba ndaje ma jeex amuñu benn jafe-jafe mbaa man yëguma ko responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi di ay responsable yoo ci Touba yoo xam ne waxuma département bi yu Touba nga xam ne ay responsable lañ tax ñu naan responsable comme ci doon ñëw nga wala yónnee nga boo fi nekk xaw ma nag euh, ku fa ñëwul wala yónnee wu parce que am amoon ay absent déedéet bi mooy euh, président Moustapha Cissé Lo neewu fi waaw Mor Lo ma nga fa Basirou Diagne ñoom ma nga fa nga fa kat moo des. Ah, nee ma diw man maa nga toog. des na ñeneen de mais lan mooy seen problème ci biir Touba. mais problème kay amul. problème kay amoon na mais réglé wu na. yàgg na. waaw problème yooyu ñoom nan problème réglé wu woon na ñun ñoo fi amoon problème man ak président Moustapha Sow président de la ma woo ko moom ku ne mu ne la bàyyil ñun ñëpp ñu baax. <coughs> mais pas élection bu dikkee ñu perdre ko élection ñun porte luñ ko. élection non non il faut ñu waxante dëgg fii dama ci préparé waale pour nag lancer appel suñu président mhm. ñun tuuba pertu ñuy élection parce que lu tax pertu ñu élection ñun néew doole lañu def néew doole moo ñuy xañ élection mhm. mais waa APR jàmbaar lañ waa coalition bi jàmbaar lañ bañkat lañ mais nag malgré amuñu ay leader yoo xam ne ñu am ay poste lañ amuñu dara loo xam ne du du ministre du directeur xale yi nga xam ne ñoo fi nekk amuñu benn dara lu ñu am loo xam ne mën nañ ci jàpp uh-huh. wax dëgg yàlla ñooñu xale yi dañuy jàmbaar nit ñi di jàmbaar mais li ñu am waruñ ko am xam nga euh, treize mille et quelques voix am nañ ko fii Touba uh-huh. ci élection législative mais treize mille et quelques waruñu ko woon am parce que li tax waruñu ko am non dafa ëpp ci li ñu am daal li tax mu ëpp mooy dañuy jàmbaar moo tax ñu am ko mais parti bi des na beneen bi ci topp mooy euh, amuñu ay directeur amuñu ministre ministre yi fii ñëw yi ci ëpp 90 pour cent yi bu ñu ñëwee waa APR la ñuy jëlaat naan leen kaay leen ànd ak man lan lay jariñ lan lan. ministre boo xam ne jógee am na ci ministère yoo xam ne seen dëkk yi ñu mënuñu fa dara ñëw fii ci dëkk bi di jël waa APR naan leen kaa yu ñu ànd loolu mooy lan loolu mooy defar xaw ma nu ko gone yi waxee naan ma lanu lan ci nangam loolu rek la amul jëriñ. bu ñu amee lu ñu def nañu ñëw seeti ay ay PDS ñi fi yeneen parti ñi fi lu tax mënuñoo jël ci ñooñu lu tax mënuñoo jël ñi politiqueul mais président de la République war na xool loolu ñu régler situation bi. Hmm. parce que ay ministres yoo xam ne dañuy jokki dugg ci dëkk bi ay directeurs dugg ci dëkk bi. duñ am soxla ci nit ñi responsable yi ne faale wuñ leen. ñoo xam ne dëkkuñu ci dëkk bi oui oui dëkkuñu fi. loolu man loolu euh, euh, na fa parce que mun leen war leen mën a concevoir. benn ministre de la république bu bokkul ci dëkk bokkul ci zone bi ñëw di fi am ay ay ay maanaam ay nitam yoo xam ne maanaam dañuy dem dañuy dem ba dañ leen di fàtte yéen non président digalu leen ko président digalu leen ko ku ci wax ne le président moo ko fi yónni waxul dëgg du ngeen rendre compte déglu li may wax ku la wax ne le président moo ko fi yónni waxul dëgg président nekkul ci yooyu nekkul ci yooyu président de la république li mu wax lu leer la dëkk bu ne ñañ fa def lu teye ne li ñu wax parrainage bi lu tee ñoom ñu ñëw Touba kuré lancé parrainage seen dëkk yi lañ dem lancé parrainage bu suur élection jotee ña ngi seen dëkk yi voté ji mais pourquoi pas ñu ñëw fii di fekk ay nit yoo xam ne APR la ñu liggéeyal nekk ci biir parti bi ñu ñëw naan leen bàyyi leen ngeen ñëw ànd ak man mais lu tax lu tax mënuñu dem jëli ay PDS ay ay PDS ñi ngi fi ay réew mi ñi ngi fi yeneen parti mais amuñu kenn ku jóge ci ñoom waa APR rek ñoo ñëw foofu mais mënuñu comprendre loolu loolu moo yàq lu bari parce que loolu li muy yàq dafa bari parce que tey dama lay jox exemple nit ñi buñ ne ministre moo ñëw dañ naan ministre moo ëpp doole député surtout ñu xool ministre bi gis ñu ab laat ci ginnaaw ñu jàpp leen fekk man dama ko mais benn ministre mënut a ñëw fii ma di ko ko def nax nga sa bopp man président Macky Sall la aw ma keneen nax nga sa bopp man du may moom du ma premier ministre du ma ministre intérieur du ma keneen Macky président Macky hmm. ñoom yëguma leen na sax ñu ngi fi bu dee ci wàllu politique. ah mais loolu nag kon euh, affaire bi moom tax ma euh, yaa ngi may bëgg tontu loo xam ne ah, yaa ngi ànd ak man moom mooy seen problème bu ne maanaam nii mais loolu il a nangu war war ngeen a taxaw mais duñ indi histoire parce que li tax mooy loolu kese ah ci ñu indi problème ci lañ bokk en réalité oui bul tiit ci la tiituma de chef religieux man damay ñëw ah, déglu ma may ma may ma ma wax la bu demal Tiwaawoon boo demee Tiwaawan wala nga dem ci yeneen dëkk président de la bu fay dem dañ naan député yi nga xam ne ñoo fi nekk kaay leen ngeen tertu gan ki Abdou Mbow barki dem yaa ngi koy gis Tiwaawan dañ koy wax naan ko Abdou Mbow maamam moo def nangam ñun suñ maam yi lu mu def dañ ko ñu koy wax dañ buñ président dikkee sax ñu faale c'est pas normal ay ñun ay taalibe Sëñ Tuubaa lañ mais dañ ñoo war a yëg ñu xam ne ci la ñu bokk mais sax doy na waar daal ok doy na waar dëkk bi moo tax daanaka da yow nekkal sa bopp rek man foofu laa nekk ah mais nekkal sa bopp ba loolu sax boo nekkee sa bopp rek maanaam harmoniser woo wala jàppale woo wala boo coaché woo mais yàgg-yàgg kon parti bi ci suuf rek lay gën a dem mais ñun parti bi ñu koy liggéey mais li may wax parti bi mooy ñun parti bi ñaari problème moo ñu gàllankoor benn bi ci njëkk mooy ministre yi fi ñëw ay directeur war di def dara xalal tey jii Cheikh Dieng mi toog soo nekkoon Cheikh Dieng li mag Sall def ci dëkk bi lu bari xamu te responsable la mais ministre yi ñëw ak directeur bu ñëwee am lu ñu def ñu ña ngay woo ñeneen ñoo sax bokkuñu APR seen i xarit fii seen i xarit fii ay PDS lañu ngir bañ ku leen sànni xeer. Hmm? oui ministre yu bari ay directeur yu bari seen i xarit fii ay PDS lañu. aw ma lu may bañ parce que wax naa ko président de la république aw ma ci leneen. pare naa ci du ne fi di xeex ñoom ci dëkk wala may xuloo du ma ko def. bu ñëwee nangu ay nit fekk ay nit yoo xam ne APR lañ na ci dëkk bi ñu jël leen di leen wax naan président moo wax ma régler Touba président Touba du président moo ñoom ñoo mën a régler Touba président de la République moo mën a régler Touba. parce que problème Touba président rek moo ko mën a régler keneen mënu ko régler. problème Touba mooy moom président de la République mu ñëw def pexe dem seeti euh, kilifa yi dem wàcc gisee ak responsable yi jàppale leen dooleel leen. responsable yi ku leen gis ñee leen ñu mën a dimbale nit ñi. man loolu la parce que fii boo xoolee Touba parce que bu dee député man kese la fi. seen rencontre bu démb. lu ngeen ko doon def da ngeen doon xool ku ngeen di jiital ci coordination bu doon. non non loolu yëkkatiwuñ dañ doon lancer suñu parrainage. lancer suñu parrainage. Mm-hmm. responsable yëpp daje ñu lancer man président dañ ma jox parti bi ñoo ma yónni. Ah. ne ma yóbbul ñu. ah keneen mën naa toog ne parti bi moo ko yónni euh, ma wutal keneen li ma la wax moo leer parti bi mu yónni mu jóge ci Mimi mm-hmm. muy premier ministre Mimi mu jox ma. ne ma yóbbul liste fii su parti bi boo demee nga jox ko waa parti bi man ma indil leen ko ndaje ma déggoo ku ne parti bee ko yoon man coalition bi moom yónni mu jóge ci madame le premier ministre naa yóbbu liste yi indil ko parti moom laa def si woon joxe naa ko bi ma dikkee wax naa leen expliqué naa leen li ma parti kii dafa weex kee dafa ñuul man li sama yitte mooy parti bi yëpp ànd ñëpp nekk benn parce que man amatuma lu may prouver alors rapidement lancé ngeen seen parrainage euh, fan ngeen ci toll ak lan ngeen gis comme résultat. cent mille signature la ñu joxe. ci démb. la ñuy joxe. moom ngeen di joxe yéen. oui moom ngeen fas yéene joxe. xam lu ñu sas. Ah. vingt six mille. ñu programmé cent mille. waaw ah, mbokk yi seetaan 28 Pro TV yéen a ko gis euh, moom moo ko wax mu ne cent mille la ñuy préparé. Ah oui moom la ñuy wuti wuti moom la ñuy wuti. oui te vingt six mille lañu leen sas kon ba xam askan wi. daal ñu dégg seen appel waaw am déet.